si département bi nit ki boo bëggee mu ànd ak yow fayoo ko juróo ko jëndoo ko da nangoon dégganteeg moom ci lam bëgg nga defal ko. le PDS. le PDS le président Karim Wade dafa waxtaan ak président Macky Sall ñu déggoo ànd. mu ne ko Koungheul de APR yow yaa fa man président Macky Sall man Karim loo tàbb Koungheul ma wax sama njaboot gi ñu ànd ak yow ci loolu loolu tey baa ngi nii si saa ñu seen responsable Thiali Wade def ko suppléant honorable député Madiama Seck bon le coordonnateur du comité électoral départemental de Koungheul c'est notre frère le maire de Missirah Wadène Moustapha Ndong ñu ngi lay doon sant. booy xool tey ci ni ñu tàmm yëpp ci man li ma xam moom rek la ci président Macky Sall tànn def ko tënk liste département de Mbour moom rek moo ci. loolu nag loolu du hasard loolu du du du du affaire yàlla neex du taara moo ko ko may. ndax ñu ko gën a taamu ñu ngi fi te amuñu loolu waaye liggéeyam moo ko ko may dëkkoom moo ko ko may kon yéen suñu candidat yi yéen a am meilleur profil pour jiite nekk jëf nekk député département de Koungheul. macha allah. danañ leen accompagner danañ ànd ak yéen xeex ak yéen te duñ leen sonal danañ xeex suñu commune yi pour ngeen ngeen gañ. te incha allah danañ dem ci kàddu gi. man nag. kuy xam xam ne. man mosuma dem combat ñàkk. dëgg la macha allah nag je touche du bois. dëgg la coow li yàgg naa bëri waaye man politique mosuma jay sama bopp mosuma nax sama bopp. way problème bu ma mos a am balaa ñoo dem élection bi ma fi nekk di laqatu dama naan sama commune am naa fi problème bii parce que loolu mooy réalité loolu mooy dëgg. waaye yàlla suturaal na ma loolu saa bu ma ko defee day tax ma gën cee defaru parce que amul benn élection boo mos a dem perte sama commune ça n'a jamais été. bañu ma kuy gis ne danañ buñ demee war nañ mën a war naa mën a perte sama commune man nii am na ñoo xam ne partagé naa fi ak ñoom ca gannaaw ma ne ah bi de nii muy doxee nii favorable favorable ma pour man sama commune. première coalition bu mel nii am na solo lool looloo tax tey ngeen gis kilifa yi nga xamee ne lim ngeen leen ñu bokk teew fii. waaye xam ngeen ne am na jëmmi jamono foog naa ne fukki at ak ñaar yi mosu leen gis euh, réunion euh, benn militant PDS mu teew ci réunion APR waaye nag fi réew mi toll moom moo tax fi mi toll moom moo tax ndax bu ngeen xoolee tey ci saal bii juróom-ñeenti section yëpp wolis aadama Traoré bi nga xamee ne yaayam génn àdduna démb ci timis te nga xam ne tey fa lañ waroon yendoog moom waaye nag moom ci boppam jox ñu ndigal nañu mën ngeen a toog ba bu ngeen paree li ngeen di def ngeen ñëw fekk si ma ñu ngi ñaanal yàlla di ñaan képp ku toog fii nga ñaanal yaayam xare ko ak jana ndax moom kat jàmbaar la de heure bu ñu defee élection de bu jëlul deuxième rek jël troisième ca fas ca kenn rax ci dolli ah, PDS lu muy néew néew néew néew doole ci département bi élection bu ñu dem de sunu section boo jël muy Ida Mouride muy neuf communes yëpp yoo xam ne sax yenn saa yi parfois duñu fa am liste mais 700 voix dinañ ko fi am. ndax Koungheul ba Koungheul daj benn permanence moo fiy dox yaakaar naa muy bu Sambale te sag la 10 danañ fa daje génnee suñ xaalis natt leble ko ci suñ biir yaakaar naa ñu ko fiy def ci leader yi bariwul kon nag dañ koy sant di ko gërëm te xam ne moo ñu jàppale moo ñu dooleel. fu ñu mën a nekk rek ñun fu ñu sàmba joxoñ rek foofu lañuy dem APR nag ku nekk xamoon na ne ñun ñëpp ci lañ nekkoon waaye demoon nañ ba gisatuñ ci suñ bopp ñu delluwaat ginnaaw suñ delloo ginnaaw nag ku mel ni maa jama sekk mii woo sàmbaale waxtaan ak moom ànd koo kaaw juuf lu mu bëgg lu ne dañ ko ci fekk te nag duñ mayee bopp rocci làmmiñ jiite wu góor nag jigéen laa jiite waaye li ma jiite ëpp na cinquante personnes te heure bu nekk ku nekk indil ma nattam ñu dajale ko lépp la wante ko suñ biir te ku ci nekk ba ma sàmba wooyee ma woo la wax la ko danga ne ma lu sàmba wax loolu lañu wax loo wax loolu lañu wax kon maa ngi leen sant di leen gërëm si jàmbaari sàmba si bopp kon dañuy sant yàlla bi nga xamante ne boole ñu am candidat bu mel noonu Madiama tamit ku ne gis na ko taxawaayam ci département bi bi muy jàppale askan bi boobu nekkul dara man dama doon ñaan yàlla kañ lay am opportunité ba mën a jàppale ma jama sekk parce que dafa am lu lii ak moom man sportif la nekk inspecteur des arbitres bokk ci Soukra bu Koungheul depuis ñeenti at ñu def tournoi des arbitres ma jama mii mooy sunu parrain naturel di ci def loo xamante ni benn parrain dafa ko fii ci Koungheul final bi bi ñu bi ñu koy def daanaka 10 jours lay duré mu def final bi si jour ba joxe ci loo xamante ne ñun day wees suñu njort Koungheul yëpp kontaan ci moom département bi yëpp kontaan ci moom épp ñu nekk ñun ñoo xamante ne tamit ñu am adresse bu baax ay politiciens yu gore def loolu la ñuy def kon lii nii cofeel la pour mu jox ñu ko tey ñu wax ci su ñuy wax ci moom du jeex wante yàlla da ko nattoo euh, APR ñu bokk ci nekk departement bi yëpp seet si niñ ko képp ku ko seet si wax na ma ko mu ne ma sàmba ma ne ah, mu ne ma man de ñëpp ñii sama sët li ñii sama doom li ñii sama rakk liñ wante dama bëggoon ñu tënku rek si discipline parti bi parce que ñii yàlla moo ñu boole ak ñoom ndax parti bi da leen tànn fekk ma nekk ci parti bi kon awma ma droit jógee ci parti bi di dem feneen ma ne ko man de loolu laa d'accord loo bëgg rek loolu laa bëgg boo noon ma ñu dem feneen tamit ñu dem fa waaye li ma gënal ñu respecté parti bi sa der rafet nga bañ a am taas suba kenn du bind ci yow. yaakaar naa bi mu déparé campagne ba léegi dëkk yi mu demaale maa moo fa teg tànk te nag département euh, euh, Koungheul bii de ñeenti téeméeri dëkk yu manqué xam naa fi dara yàlla def nañu fi faloogum ñu bëri boog ànd naa ak ñoom ñu falu. di nuyu it su ma fi jëlee kàddu di nuyu sama xarit sama mag sama doomu ndey sama doomu baay alaaj Mohamed Dieng ndax jàmm lañ séq fukki at ak juróom-ñett yoon bii lañ séqut politique kon loolu il faut ma leeral leen ko ngeen dégg ko su ma leen ko ma leen ko leeree pour ngeen dégg ko yàqu dara dañoo dafa ma yónni fii ci salle bii kere bi ñuy tànn candidat surtout Pastef mi ƴettude kartal am biten am mi loowambo he jayngol ɓurani mi wotande Pastef jo noon wonko haalete Samba Saloum ko minen gondi o Moustapha Andongi andi gila ñade natume politique ɓe wonɓe ɗo fof kala ɗo jiiɗon kam on jiiɗon samba saluma on jii kam samba noon min kaldi o wimi ko pastef woni mi waɗi négociation ha mi gooɗi o wi ko pastef woni mi ala pastef neɗɗo mbo mbawanmi sare o wotta pastef mbo mbawanmi e commune yida o wotta pastef ko maire am degginmi miɗen e apr miɗen nanggani listi apr min nanggani ko majama sekka e fantasal kala neɗɗo mbo mbawanmi o wotata ɗo wona affaire te miɗo yanana parce que man mag laa dama dama nekk seen kanam di leen jàppale di jàpp pour que bi jàll waaye na seen xel dal lépp loo xam ne lan daa am na moom bu ne ooyee téléphone na ma jël ndax li ma fiy dégg ak li ma fiy xam bari na nit dana ñëw ci man bëgg bëgg bañ bañ a bañ woteel ma wax ak moom mu nangu Euh, may nuyu nag sama doom bi ma kontaan trop yaa jàllo parce que moom itam bokk na ci ñi nga xam ne bi ma ko gisee sama xel dafa gën a dal ñooñu sa way ni ñoo xam ne boo leen gisee rek am na ñoo xam ne yàlla du leen teg teg teg gàcce ba ñoo xam ne bu ñu toogee ci place gàcce jeex na foofu kon nag may nuyu ñëpp di gërëm ñëpp fi mu ne mag laa du ma mun am yenn toogaay yi Fanta kontaan naa je suis à disposition maam góor gor la euh, sa position kontaan naa ci trop Samba Ali euh, xam nga ne yow doo am gàcce ndax yow bàyyi ak bàyyi la woon yow xam nga man xam naa ok. man nag damay wax ñi nga xam ne ñu ngi may xoo dama cherche dama wax dama leen ñaan ngir yàlla ñu jàppale ma jéggal ma. ñu xam ne su ma bàyyee parti bi demay am gàcce su ma yaram manul loolu gàcce boobu mën naa ci dee kenn ku ne xam ne su ma diggante ak Baye Alaaji Mohamed Dieng Baye Alaaji Mohamed Dieng 2014 jàppale na ma bare bare bare lu am rek yàlla la waa day am fi ko yàlla jaarale 2014 bu ñooy gagné gannaaw yàlla yàlla mu ngi koy jaarale ci Baye Alaaji Mohamed Dieng waaye mu may xoo waaye ma kamal ko su ma waxee tey génn naa affaire dem naa beneen parti su ma génnee de war mbedda Koungheul yi wala war mbedda Lour yi gàcce man naa ci tension yi ni mu bare mën naa am kër sama dee loolu kese mooy tam manuma xooyu bay Alaaji Mohamed fuñ ko jëlee xam nañ ko waaye nag foog ñu daw làqatu ji parce que pël yi ko topp ne dañ koy ànd ak moom muy yaaya sow ren ji joxe na engrais boo xam ne trente cinq mille francs la doon joxe par ton ñi ko topp yëpp di tëb di dal suñ ko kon ma wax ne beneen coalition bi nga xam ne foofu tam ay workat a fa ne muy coalition bi nga xam ne dañoo jël seen candidat yëpp def ko ci seen bopp ak seen biir muy soose ak baduli ñoom ñoo doon wax Macky la Macky la non du Macky ñoom seen bopp lañ doon doxal ak seen poste yi mais gëmuñ Koungheul gëmuñ Macky Sall may wax ne Macky Sall nag képp koo xam ne même bu la mayul xaalis def na ci réew mi loo xam ne nit ñi fooguñ ko woon. dañoo làqu nag ba kenn gisuñu parce que li ñu làqoon mooy dañoo liggéeyal président Macky Sall ba mu falu ñun dañoo bokk ci ñi ko fal ñun xaar yi ba mu falu ñu soogee dañoo bokk ci ñi ko fal ba nopp bi ñu bokkee ci ñi ko fal ba noppi mu am lu ñu ñaan ñu may ko ko mu ne ñu jël leen seen maire maire bee Alaaji Mouhamed Dieng ngeen jiite ko ci seen commune bi ngeen ànd moom liggéey ñi nangu ko loolu waaye ñin ñi nga xamante ni tey ñoo nekkoon ci président Macky Sall démb ba tey liggéeyal ko ba suñu maire bi ñëw nekk fi gisuñu suñu bopp ñun dafalu ñu dara kenn dafalu ñu dara ci ñoom wutuñu ko nag parce que ñun engagement lañ jël bëgg président Macky Sall waaye ñun suñu fas sekkeen gii ñi nga xamante tey ñoo fa nekkoon président Macky Sall démb ba tey ñoo jël ndaare tey te loolu dëgg du yoon dama ne nga liggéeya nit ba mu falu kooku moo la war a encadré yow diw sàngam boo demee nga jàppal ma diw ak diw ak diw parce que ñoo tax ma falu loolu mooy dëgg. am kenn koo xamante ni mbala ñaar ñoo xamante ni danaa leen lim Ibrahima Diouf daf ci bokk bu ma waxee Ibrahima Diouf. wax Tafa Salam yi dafa am ñoom lu ñu représenté ci maire ndaw ñoom ñaar ñëpp dañoo nekk kii di Tafa Salam yaayam ak maire ndaw ñoom ñaar ñoo bokk bàyyi Ibrahima Diouf Male moom ak maire ndaw doom yëkk doom wëllu la mais ba ma taxawee. ne lii duñ ci ànd Ibrahima dafa ànd ak man ci loolu ñii ni ànd ak man ci loolu kon nga xam ne ay góor maintenant moom moo nekk fële nelu da ca kër gi ca lu ñëw tey du fanta defoon ma jama fekk def ko ñun la ko defoon xoolal leen ma yoonu ribo Koungheul ni mu meloon ma jama sekk moo fa njëkk a teg raara ba tey gudroon nañ ko lampadaire yàgg bi tubaali mbenda auto ambulance bu bu médicalisé poste de santé loolu yëpp mu ngi ci gestion ci grâce ak moom ak Abdoulaye Seydou Sow dama ne ñun fi ñu jëm nii dañu jàkkaarloog ak ay pànk jàkkaarloog ay ay soskat te ñun ñuy ay jigéen ñu pànk yoo xam ne luñ luñ ci bëgg rek ñu dem ceeg ñoom ba mu jeex. dara waralu ko nag mooy ñu jox suñu candidat yi majorité à l' assemblée nationale. am na ku fa wax léegi pour pourtant pro Pastef am nañ projet de xam ngeen projet ba ñaam am kaay leen final ma ma fay leen ku gis kuy dem ci géej gi wax ma ko ma fay la. yëpp ànd nekk benn coalition muy takku wallu. Sénégal ñooñu bu ñu àndee ci département Koungheul jàpp naa ne ñi tànn seeni i candidat ku mënoon a doon war ngaa mën a gañe waxuma la nag candidat yi ñu tànn candidat yi ñu tànn muy Madiama Seck ak Fanta sàll wax dëgg yàlla ñun ñoo yor kandidaa yi gën a neex ak campagnal ndax departement Koungheul bii ëllëg bu ñu demee assemblée nationale beneen candidat bu ñu tànn bu demee taxawaay ba muy am du xaaja jot taxawaay bi Fanta Sall amoon démb assemblée nationale waaye rawatina ma jama sekk mi nga xam ne ku ko xam xam ko ci développement ak bëgg yokkute surtout ci mbay ak ci càmm kon ñaar du ma ko def ndax tey ji jàpp naa ne Sader mi mu ngi wax tey lañ soog a ma jama xam naa ko mais moom xamuma kon nag su ñëwee bay jàpp ci liggéey bi rawatina Mor Seck ak honorable Fanta Sall di wax na rek Koungheul yaatu na Euh, ku nekk nag am nga foo féetee euh, man fi ma féetee tey ñëpp xam neen ko ndax élimaan mu honorable lañ may wax di ko dëkkal si noppi nit ñi beneen bi nag may ñëw di wax ne Koungheul bu dee ne dañ ne neuf communes la six communes yëpp ñoo ànd te six communes yëpp ku ci nekk yaa gagné woon largement sa biro sa commune fi nga dëkk kon jàpp naa ne lii nekkul loo xam ne élection la lii may bañ daal mooy ñu wax waaw joo xam ne day waafal déet mais ku ci nekk bu ko defee sa yëfi bopp xaaroo ci Fanta xaaroo ci ma Madiama jàpp naa ne lii day yomb maa ngi sant nag sama benn nit koo xam ne kenn la ci man mooy sàmba Congaan dañuy partage ci lu bari maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm sama baay am man ndaw male moom it maa ngi koy sant bu baax dafa nekk kenn koo xam ne bañ na ba du ma wax lu dul sama doom bi ma nit bàyyi rek. ñu Euh, mën nañ ne la crème départementale ci wàllu kilifa ñoo fi nekk ñi ci des aussi nekk suñu ay kilifa directement donc dañuy jiital si niveau bi comme liggéey moo ñu indi fii tey gis naa ne tànn nañ honorable Ndong ñëpp ànd ci pour mu jiite liggéey bi nga xam ne moom lañu war a kon dama koy nuyu mu nuyu ma ñëpp saal bi tey candidat jàpp naa ne ñoom tey dañuy topp suñu ginnaaw ñun ñu xàllal leen yoon on doit les sécuriser loolu moo tax man sama kàddu du gudd waaw duma mën a nag ñàkk nuyu ñenn ñi nga xam ne euh, dañu wóoloore wante te damay lim sax mais suñu xoolee parti allié yëpp tey kenn ku nekk am nañ ay jàmm ndax man yàlla dogal na awma jafe-jafe ak benn nit si dëkk léegi bu ñu paree bi dañuy jublu si comité électoral commune bu nekk l'idéal sax mooy fii ak 48 heures yëpp pare on va changer benn superviseur boo xam ne il va essayer de mettre en place benn dispositif boo xam ne kenn dëkk ci commune yu fasanti ko ñu mën a dékku liggéey ba foofu maanaam je répète la répétition est pédagogique ku déggul trop fi da nga xam ne dañ laa cëru nga toog sa commune ñi bokk ci commune Koungheul suñu paree léegi dañuy toog def suñu ko rek def naa ñaari orateur moo des xay na sant Guèye ak sant Diop bi waaye ñu muñ ko rek kon asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen nuyu ñëpp waa département Koungheul waaye di jiital nuyoo bi sunu mbokki parti alliés yi nga xam ne yëpp ñu ngi fi di sunuy kilifa waa PDS waa réew mi. waa partam moo di Diagne Fada da Pape Ndiaye jiite ko ma déggante moom mu jox ma turi juróom-ñeenti commune yëpp gannaaw loolu ndeyum bi mbiligi parti bi ñu wuyoo di APR nayu nañ leen yéen ñëpp bu leelu weesoo ci côté mouvement yi Samba Ali Ba yoroon ab mouvement taxawal ko ci région Kaffrine doxal ko ànd ak ñin ci APR ba sunu borom la mu dogal ci moom ak coobare mu def ko élection yi passé mu jàppale Bassirou Diomaye fay tey mu ñëw fekk li ñu fii ñu ngi koy nuyu di nuyu mooma Ilimane bay moom it département bi li fi def yëpp ñu ngi koy gis wax dëgg yàlla moom itam xoolaanoon naa ñu ne candidat à la comme ñi ñëpp mu nekkoon ko ci parti passif te itam mu ñëw ne mu ngi ñuy jàppale loolu yokkute la ñu ngi koy nuyu bu baax dina it Amina Sow xam naa man de xam naa la lu yàgg ba sa yitte maa ngi koy tudd moo sekk mi mu ne ma ndax kii la wala du kii ma ne ko Amina bii la mooy Kiran Jongal gu ne yàgg naa di la siiwar bu baax toog nañ sax jataay kër Alioune Badara li man ak yéen parce que man réseaux sociaux dafa bëri ma koy xoolaan suñ borom dafa dogal man dama ñemi wéetaay trop te du may xoolaan télé mais xibaaru Bambuk wala ñoom firi info yi boo koy xoolaan même boo nekkee bitim réew bépp doomu Koungheul ak bépp acte bu ne di def rek da nga ko ciy gis man loolu mooy sama wétal moo tax toujours département bi lu bëri dara du ma ciy rëcc yàgg naa di la ah. xoolaan sa yitte ba xam ko bu baax a baax foo nekk rek maa lay xoolaan kon gannaaw bu ñu nuyoo ñoo ñëpp nag ñi ñëw ci waxtaan li ñu fi indi muy politique taxawal comité moo ñu fi indi woon mais population bi jàmbaar ngeen am ngeen engagement fii ñu teg suñ tànk buñ ko teggi yaakaar naa ne comité bii tey bu ñu fi jógee rek xel na trop dajale ñi ñu suba ba léegi fii joxuñu benn kaar joxuñu benn paas joxuñ ndékki joxuñ añ da kenn xàddiwul a ah, engagement bi yaakaar naa ñun rek ñoo ko am keneen amul te li ma ci gën a neex sunu naataangoo jigéen ñi parce que politiciens yi dara du leen umb am na bu fi xewoon temps yee du ñu ci jël temps waaye maa ngi dégg ñaan ñaari jigéen ñoo génn ci département Koungheul teew ci kon yaakaar naa uute nañ ak sunu bos tey mooy sunu naataangoo yi jàkkaarloo kon fi ñu teg sunu tànk nag bu ñu naagu parce que Iblis jaamu yàlla lu bëree bëri bëri bëri bëri waaye dafa xëy yëpp ne na sax ñooy fëbur da dañu gañe incha allah bind leen ko denc waaye bu ñu naagu fi ñu teg suñu tànk ba le 17 ba ba ñuy jot suñu pewee ñu dégg récitant élection kenn dootu ko jàngal kan Bassirou Diomaye fay mii njëkkul maa xam ne gañe na Sénégal parce que dama doon siiwur ba ñu defee élection bépp gox ci gox bi gëstu naa ko ba xam ne gañe nañ dugg département dugg région di siiwur Sénégal kon nag guddi le 17 incha allah balaa 8 heures nañ ñaan yàlla ñu am suñu victoire da jot ko da téye ko waaye bu ñu naaw nag teg bopp gannaaw loolu ñi ñëw ci wàllu candidat yi candidat bii ñu yore tey dañuy sant yàlla sunu borom man awma lu may ragal ci politique awma lu may ragal ci njiit toujours dama gis nit ñi di wax ne dañuy weerante léeg-léeg maam Gor Saw jiital moo sekk ne jiital man dama ne kuñ ne jiital demal ci kanam ilimaan gënul ket ilimaan waxuñ mooy njëkk nit àjjana waaye yàlla suñu borom moo ne mbooloo mu dajee dana am ku ko jiite man préparé wu moon sama bopp candidat ñëpp xam nañ ko wax dëgg yàlla jëw ma ci wàll waaye li taxaw nag alaaji Géey mii wax na ko su fekkee candidat nga du ma déposé borul candidat damay déposé kooku kon xay na xooloon nañu Moustapha Ndong mii ma leeral leeralal leen ko tey ba ñu gañee ñetti fan moom moo ne ma bëgg naa bu ñu àggee élection yi ñu jiital la am naa bëgg-bëgg bi am naa yaakaar bi waaye yow laa ci gën a yaakaar loolu ba ñu gañee ñetti fan tey laa koy soog a nettali maam góor mii fam ca jaar wax na leen ko ngeen dégg ko da yónni wuñ koon mu dem génne xalaatam ba mu demee noonu saadeer moom dañuy toog guddi ak bëccëg ñu toogee dakaar fu mu toog mu ne maa jëm mooy suñ candidat dañuy gañe mën a tekk rek yëpp maa ngi analyse moo sekk mii ñoo àndoon daje France ku ne ak ko ko jege dafa am ñoo dañu sonde ndax dinaa nekk candidat wala du ma nekk candidat ndax xëy na am nañ kersa pour wooma di ko wax lan la la maa ma wax de wallaay lancim lañ fa nekkee mosuñu wax lu jëm ci candidat moom it lam ca xam la wax boo waxee mooy la waxagut ma ci dara benn bis mu toog ba mu yàgg keroog dama ko xaw a yëram mu ne ma maa jëm ah bari na loolu yaakaar di une fois nga nekk candidat di ñun de mënuñ bàyyi boy yi fii rek kanaan ak terrain bi wax dëgg yàlla ma noote waat ba tey ma toog Moustapha Ndong waat ma ne ma am naa lu ma la waxoon de yàgg na torop ma soo ma ci tontu fan nga ci toll keroog dama génn kër bi ma nekkoon di doxantu ma ne ko ah, bu ma ñëwaatee dinaa la wax parce que man nag lépp lu ma waaye wax su ma xasee ba jox engagement dama ciy dogu moo tax suñu wax dafay yéex trop ba ma ñëwaatee laa jël sama téléphone leen ko Moustapha incha allah sama candidat nangul naa leen ko fu leen neex ngeen taxaw wax ko te danañ ko jox Abdoulaye Ka itam ñi ñëw ci nopp amul ubbeet mosul maa wax ba bis ni que tey jii waaye dama gis suñuy naataango yoo xam ne dañuy dem ne ko dañoo bëgg nga jàppale ñi mu ne leen su maaj ma defee candidat moom laay jàppale su defut ma seet keneen ku jàppale ci kon gis nga ni jamono di doxee ñu daje fii ñëpp it ñu leeral la leen ma Maxari Mbay mu ngi may woo léegi ñu war a gisee ba ñu demee mooy ma toog waxtaan ak moom ci candidat de même candidat yi génn ko na ko déposé nañ sama tur de bu suñ borom dogalee mu tegal ma kàddu yoo xam ne dama am yaakaar ci moom parce que daf ne ma mënaguma wax ku ñuy jàppale lu dul li yi génn waaye daf ma tegal condition ku bëgg ta ànd ak yow kanaa du la tegal condition daf maa wax su fekkee suñ borom dogal ma jàppale nii laa la mën a jàppale nii laa a jàppale keroog laa am yaakaar ci moom Samba Ali ba miir gis ngeen ko ndeysaan xam ngeen ku gis liggéey bii ñoom dañ doon liggéey xamuñu Samba xamuñu dem ba kan lañ koy def waaye bu ñu joxee kàddu muy dem démb mu bàyyi yitteem ñëw tey fekkee lii da métti na ci mor torop da jàmp na kon gis nga yéene ji sama baay am man ndaw mii damaa jël sama oto sama kilifa la ma ne ko dama la soxla yaa ngi fan mu ne mu ngi dëkkam mu ne ma ndax doo bàyyi ba suba wala déet danaa ñëw ku Koungheul ma ne ko bàyyi man dama am yitte damay ñëw fekk si la ba ma demee seeti ko man duma sëkkatal kilifa depuis booba ba léegi sonnalu ma ko ci téléphone moom moo ma woo jotul ma bërki démb ma woo ko ma dem këram tey gis ngeen ko ci daje bi kon yéene ji moo bokk dajee ci sunu tur nag wax dëgg yàlla mënuñu allier mënuñu yox-yoxi mënuñu ñàkkaa dem nekk candidat poroti assemblée nationale may sàkku nag yaakaar jii lépp am yàlla nañu ko yàlla defal yàlla buñ ci rus yàlla bu ñu ci am gàcc parce que ndam gi mooy ñu gañe la 17 bu loolu weesoo it nag su ko yàlla suñu borom dogalee ñu bëri xam nañ ñi du ñu am temps boo xam ne ñu toog fii di ko fi wax député moom man li may ñaan yàlla su fekkee dem naa assemblée député Sénégal laa bëgg a doon moo ëpp doole Koungheul mais gannaaw Sénégal député Koungheul laa bëgg doon parce que département bu ne am na ñu fa ñoo xam ne ñoo leen fa représenté bu baa mu nekk Madiama Seck ak Fanta Sall war nañ xool nag Koungheul mu gënal ñu Malem ragal féete day xañ ak cër war nañ xool Koungheul mu gënal ñu Mbirkilaan loolu wàññiw ci dara bu loolu weer soo ñu bàyyi xel nekk député poppul lépp lu aju ci lu baax luy jëmale Sénégal kanam ñu jéem koo def lépp loo xam ne baaxul ñu jéem koo moytu loolu lañu ñaan yàlla suñu borom parce que li paase ku ne am na ci responsabilité ay milliards la Sénégal génne ñu organiser élection nañ di nangu nag décret parce que loi bi moo teg ne ku am ñaari at booy président ba la neexee tas ensemble bi loolu dañ koy nangul président Bassirou Diomaye Faye parce que loolu moo koy yàlla moo ko jox nañ nangu lu yàlla suñu borom dogal waaye la tax mu tas ko man su may analyser suñu mbokki Pastef yi dama leen di cité tey ñu ngi doxee bip si Sénégal da woote wuñ koon démb fa ñu toog man su ma fa toogoon woote ko gis nga nu nit di doxee kon yaakaar naa tey buñ ne fii balak maa ku ne am na responsabilité parce que bu fekkoon ñee defoon ñooñ tey Sénégal nan la def doon na métti waaye léegi-léegi nag coow danay bëri jógee ci ñi nga xam ne it xëy na nekkoon na pouvoir coow li bëri kooku am nañ ci responsabilité ba assemblée bi tas la may ñaan yàlla bu ñu yàlla yóbbu assemblée da danañ taxaw wax ko ñëpp dégg 165 personnes ci 18 millions Sénégal waaye waruñ fatt Sénégal di jël ay milliards Sénégal di ko yàq lu jar bàyyi xel la xool leen yéen ñii toog ñi fi nekk yëpp nekk ñaari nit xoolal département Koungheul ku fi nekk député da nga am 18000 personnes ñaari nit ñooñu dem assemblée di fo di caaxaan ba assemblée bi tas loolu yaan ci yàlla musal de tous les députés yi war nañ bàyyi xel ci loolu ba nga xam ne assemblée bu ñu teg bii nañu góorgóorlu liggéeyal Sénégal denc intérêt personnel denc politique politiciens yi fexe tabax ko liggéey ko ci bu leen fa yàlla bàyyi ci juróomi at président bu mënta doon nag bu amee ñaari at moo ko war a tas bu ko soobee loolu de suñ cër lii bàyyi nañ xel ci nga xam ne yéen ñi taxaw ñi taxaw fii di ko wax danañ leen ko ci yëgal déclaré lañ defoon ku wax maa la candidat à la candidature ba liste yi génnee ñi taxaw ne candidat ñu ngi ciy jéggale toutes les presse di leen ko xamal xëy na danañ am beneen ci kanam ndax lii dañoo toog ak sun naataango defoon nañ ko candidat à la mais depuis mbir mi door ba léegi ñun ñu nekk dañ koy ñeme da dañ koy ensemer bi ma jógee bitim réew dafa am loo xam ne président moo ko santaane woon ubbite école yi set setal yi lu nekk ñu gàcc ko administration yi ñoom itam ñu lëkkaloo ak ñun mooy sous-préfet ak maire yi lu bëri ñi ñu ci yaakaar di ci yaakaar Abdoulaye Ka man ak sama sous ñu porté ko bi loolu di jeex altine bi ñu wax ubbi tey jàng tey keroog laa noonu su ma paree ci loolu nag ñëw xoolaan si wur kan mooy génn ak kurut génn bi may ñëw bi may passé tubaali mbend laa gis li si di génn bi ñu ñëwee def nañ juróom-ñaari fan Koungheul mosuñ fi jógee noppaluuñ chaque jour 4 heures lay tëdd tey jii tëdd naa 4 heures maa ngi yow 6 heures et demi depuis ñaari semaine ñi ngi ci lii ñun ci lii lañuy ñuy dox di génnañ Koungheul ñu ngi fi nekk parce que nit lu ko jaral rek daf cay nekk ña xatoon ci waaye sant nañ yàlla nag ba comité bi taxawee tey ndax bari nañ ay gan yu ñëw defe naa ne am na lu ñu seddoon suñu baay am ma ndaw manuma koon sédd ndax xamaguñ dañu ànd nit ku si nekk dafa war a liibar Samba Ali mi am lu mu yor Fam Sall am lu mu yor keneen am lu mu yor lu bëri partagé na tey bopp xaw a ubbeeku xanaa suba rek ñu gën a lu taxaw ci comité boo xam ne ni defagoon sa comité commune nga def ko bu ko defee ñooñu ñoo war a continuer procédure élection yi fi ñu jëm kon loolu dañ noon ñu wax leen ko ci leeral leen ko ci moo gënoon a tax yéen suma naataango yi wax dëgg yàlla Dramé Matar saar toutes les presse yi nekk Koungheul dégg ngeen li ñu seede di ko wax ci yéen man dama leen di ñaanal yàlla na ngeen am télé ba ñu ne télé Koungheul lii moo taxoon ba léegi dégg gu leen sax sama déclaré mais du dara damay tukki def lu mat weer ci àll bi ñëw élection yi door ñu nekk ci lii nga war a def fi nga war a dem lii nga war a def fii nga war a dem ba tax defaguñoon suñu déclaré mais yàlla suñu borom dogal na nekkoon nañ candidat à la candidature tey ñëw nañ waaw tey ñëw nañ ba jàkkaarloo ak yéen nekk candidat préparé dem ci élection yi moom di Diouf Kaw yàlla sunu borom dogal na wax dëgg yàlla li nga présenté fii xam naa ne yow it te doo woon di nelaw kon ñu ngi lay sant di la gërëm ci taxawaay boobu ku mel ni maam. baalu baax di leen baal parce que toogaay bi yàgg na te si booba léegi yéen ñëpp yéen a ngi toog ñi ngi nuyu kilifa yi fi teew ñu ngi nuyu jigéen ñi ak jeunesse bi fi nekk aussi yëpp maa ngi jiital ci nuyoo bi maire yi fi nga xam ne teew nañ fi ma mun cee lim Abdoulaye Ka Ribo Escale nekk nit ku dëggu mais nit ku am ngor aussi Mor Seck maire Ida aussi nekk jàmbaar nekk nit koo xam ne aussi benn kàddu la am di nuyu sama frère Moustapha Ndaw maire Missira nekk nit koo xamante ni jàmbaaram foog naa ne kenn du leen ko wax di nuyu aussi Pape Sader bi nga xam ne aussi engagement woom ñëpp moom la ñuy waxtaanee te noonu laa mën a nuyoo ka nekk fii waaye mel na ni mi ngi fi su ma leen nuyoo dinaa nuyu suñu kilifa sama nijaay alaaji aman ndaw mi nga xamante ni lépp lu ñuy def buñ ko gisee suñu xel day daw daal ci ngoor gi ci expérience bi ak ci dëggu gi sama nijaay Maxari Mbay aussi nekk fii waaye mel na ni mu ngi fi teew noonu laay nuyoo aussi Abdou Khadir Samb monsieur le maire de Maka Yop maa ngi koy nuyu di ko gërëm ak délégation bi mu àndal fii yëpp su ma leen nuyoo dinaa nuyu waa fas ca kër ñoom Pape Ndaw ak Papa Séni ak ñoom Tayru ñëpp ak ñoom Fafa mbay maa ngi leen di gërëm di nuyu aussi waa Koungheul yëpp di nuyu Madiama Seck waaye di nuyu aussi suñu alliés yi nga xamante ni mënuñoo dem bàyyi leen te tey biñ leen gisee aussi suñu xel dafa dal ndax bu nekk xam na ne PDS li mu am ci senegal waxuma Koungheul kenn du ko kenn du ko natable kon bu ñu gisee suñu yaay Nafi Ngom mii toog nga xam ne fañ ko xamoon ba tey fa la nekk ah day dalal suñu xel bu baax a baax te suñu xel dal na bu baax ma gis sama nijaay Modou Gueye expérience am rek doy nañu ci élection yi ñu jëm te gis nañ ko déglu nañ ko ma mën ko wax sama grand frère Samba Ali Ba mi nga xamante ni ñëpp xam nañ taxawaay bi mu am ci Koungheul ndax loo bañ bañ rëg lëg di nga nangu ne tànk yi gudd na te ñëpp nangul nañ ko macha allah taxawaayam fii ci Koungheul man nag personnellement mu nekk sama grand frère kon bu fi ñëwee expérience rek bu ñu ko indiloon mun nañu gañe élection yi rawatina li mu am ci dëkk bi ma gis sama frère aussi moom ma di Diouf Kaaw mi nga xam ne aussi jeunesse bi ñoo ko tànnal seen bopp parce que mun naa ko seede nit ñi dañuy ñëw ci man naan ma Fanta Kaaw lu mu wax Kaaw lu mu wax kon loolu yaakaar bu rëy la yaakaar boobu yàlla na ko suñu borom bi dëggal waaye ma nuyu sama nijaay tonton maam Góor Sow góor yaa ngi ci dëkk bi de ndax ku ne xam na ne góor la démb lañ ko woo ko ñeenti million muy leen du ma bàyyi président Macky Sall te li ko Macky Sall defal defal na ñu ñu ëpp lu mu ko defal te banañ nañ ko fi dem kon jaayoo sa bopp te góor am na ba tey noonu lay nuyoo Thialy mi nga xam ne dañoo bokk list bi mu nekk sama nit nuyu tonton Diafara nuyu Pam Ndiaye waaye nuyu allié yëpp ma Ami maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu ñëpp ñëpp ku lim juum Tande maa ngi lay nuyu na bu toog nuyu naa leen yéen yéenay jàmbaar yi te bu ñu leen gisee aussi suñu xel dina dal yéenay suñuy mag yéena ñu ëpp expérience ci politique ñun bu ñu sañoon fu ñu nekk aussi gis leen fi kon seen teewaay rafetlu nañ ko ma nuyu François Sagna Calixte saaña teew fi waaye ndaje mi dara ump ko fi parce que yónni na Moussa Ndaw mu ñëw teel ko fi di nuyu aussi Maodo Malick Ndaw secretaire général mu nekk doomu Koungheul bëgg Koungheul mais bëgg président Macky Sall di ko jàppale aussi ànd ci suñu candidature man ak Madiama sekk kon bu fi teewee ñun sant nañ ko bu baax gërëm ko ci teewaayam ah ñun ne lu ñu gis fii Tan ki Kiné maa ngi lay nuyu bu baax dal na suñu xel jàpp naa ne sag la waaye sas bu rëy la ci ñun muy man ak Madiama Seck ak candidat yi parce que ndaje mi yàgg na fi am waaye foog naa mosuñu ko jeexal te tey ndaje mi am gën a rafet gën a bari nit te nit ñi macha allah engagement moo leen fi teg kon dëgg boobu ak taxawaay boobu ngeen am jàpp naa ne sax bu rëy la sas bu rëy la ci mën ak Madiam ndax tànnuñ ñi parce que dañ ko gën a mérito fii kuñ fi tànn nga dem nekk député parce que ñu am gëm-gëm rek ñoo fi toog ñu bëgg département bi rek ñoo fi toog kon ay góor buñ dajee ñi tënk jiital la ah na nga xam ne tànk yi ngay doxee moom la waaye nag dinaa ci beral ay nuyoo ay maire aussi waxoon naa leen mais dinaa leen ko waxaat parce que Sader Dieng mii engagement bi mu am ci élection yi mësuma ko gis mu am ko ci élection te yàlla dogal na maire te ñëpp nangul nañ ko ko man damay toog ba si yàgg damay sax tiit ci engagement woon kon am na góor góor yaa ngi ci ci département bi ba tey kon ñu ngi koy sant di bu baax di ko gërëm def na ko pour président Macky Sall de mais def na ko aussi pour ñun te nit aussi bu la lebalee da nga koy xam ma mën ko wax ci Moustapha Ndong mi ndax élection yi passé sama nopp nopp président de la république man la bëggoon jël ak Moustapha Ndong Farba Ngom mu ngi taxaw kenn gënu ko jekk ci député kenn gënu ko mun a xeexal département o kenn gënu ko dëggu aussi te élection yi dafa ne ñun ñëpp nañu fàtte suñu bopp xool intérêt coalition bi kon nit bu la defalee lu baax aussi da koy wax keroog bi liste yi génnee maa ko njëkk a gis ma ne ko Moustapha sa commune caali lañ jël dafa yuuxu baax na bu caali toogee ma seede ko mu ni ma mu ni ma caali PDS la nekk moom moo ma xamal sa caali PDS la nekk mu ne ma loolu baax na dinañ ànd xeex dina ànd xeex te incha allah